aj Sénégal ku doon laajte supérette bu yoboo noppalu ndax supérette si ñëw na nekk Cambérène tali Njaga Mbay gën leen ko préciser nag fi nga xamante ni fa la clando yi di tourner maa la ko wax de supérette bu bees tàq la te am tawféex lépp loo xalaat nag ñu nga koy jaay ci biir poulet viande jambon poisson lépp la ñuy jaay ci biir am na tamit gelato et biscuit am crème glace am nutella biscuit lépp ñu ngi koy jaay ci boobu les suprette nee naa la ba tey ci wàllum jus am na lait maa la ko wax am na soow pur am na soow nag bépp xeetu boison boo soxla it am na fa am na ay caakiri am na eau minérale foofu daal am na lépp dafa taw féexe ndax suprette al firdawsi la ñu ko duddee ci wàllum légume tamit am na fa waaw waaw am na ca biir lépp luy xeetu légume rek am na fa ñoom pomme de terre rek et lépp am na fa laa wax ci biir ba tey moom li nga xamante ni moom moo di supérette al firdawsi am na it li nga xamante ni moom moo di transfert d'argent maanaam multi service waaw waaw Wave Orange Money Kepa Western Ria gramme lépp am na ci boobu la supérette bu la neexee itam nga toog sa kër xoolal numéro yooyu di daw ci suuf nga def sa commande lu la neex kaay yi livré la ko ba fa nga nekk foo mënti nekk nee naa la bi supérette bu bees tàq la kenn du ko am di jooy doo ko gis di ko wëri ka fa dugg jaaxaluma de ka fa duggagul ama yem gaay ñew leen waay ñew leen xool li nga xamante ni moom di supret alfirdawsi supret alfirdawsi nak nee naa la ma nga sedd guyi guyi guyi gis nga yow foofu boo fa duggee da ngay mel ne ku ne aljanay firdawsi dañu ko climatiser ñàq moom doo ko fa indi doetet boo demoon ca àll bayit ba ñàq tooy xib da ngay dugg rek sedd ma fa ne amul <laughs> cey place naw na fépp Pikine waa Pikine euh, Modou loo waa Pikine yawuñu ko da leen demal bagage ci lu mais li ma jaaxal Boy Niang gola waajal gaa ngi yéeg la waaw yow day sóob rek cof daw lay def champion la Boy Niang Boy day cof daw cof rek daw mais noo leen nar a pare na fépp muy xeex bi muy bëre bi pare na fépp julli timi sooga ñëw ah day julli timi sooga ñëw day julli ba pare dooga ñëw Modou noonu lay def dafa pare moom su lépp ci sariya la la lay wax non Boy Niang dañ ne mu taxaw dëggal boppam xam nga Boy Niang moom day cof daw na taxaw dëggal boppam. mais Boy Niang moom Balla bu ñu xoolee combat bi dina jël boppam. waaw mooy waaye Boy Niang day sóob rek. Ah. day sóob rek du dëggal boppam. Ah. waaw Boy Niang du boppam parce que xamul xam nañ ko bu baax parce que laa moom yëpp da koy négocier dama cof daw taxaw ko le Mor yooyu yooyu faraje bu ko waaw moom lu muy indi ñu wecc ko lu leer laa lay wax. Adama jàmm ci tous. aja Sugar ci loo ne. waaw maa ngi sant bu baax ma. dafa fekk waaw sant yàlla alhamdulilah. mais eh, yow ya, noo noo leen yabee seen mbër. waaw sunu sunu grand moom xam nga kwa, xam na yoon wi quoi. di ñaan yàlla su borom mi maye ndam rek doolu ko sutura defal ko ndam bu gën si moom. waaw ñaa golo waajal daa ngi. mais moom bii du golo bi gaynde la. Oh. wa <laughs> te boo champion la. waaw la wax dëgg. la nag Modou Lo waa Pikine yàbu ñu ko mais non mbër la mbër la wax dëgg yàlla champion la mbër la da nga nangul lool noonu wax dëgg yàlla mais da daje mbërën daan bi moo tax waaw noonu la demee nag. léegi loo koy waxee. kala Boy Niang loo koy wax. ah Boy Niang xanaa mu ñëw taxaw rek mu ñëw taxaw rek dëggal boppam rek. waaw wax dëgg yàlla bàyyi muy def ay capp daw yooyu. Modou pare na pare na bu yàgg. moo doon doggali nii rek mais pare na bu yàgg. daa mel ne julli timis pare na ñëpp le 5 novembre ah. daa mel ne julli timis naa ne lu bis bi laaj rek ñu defee ko noonu incha allah bu neexee yàlla. fi leen daal. Modou Lo. Ah, loo mu kii rek mu kii rek xam xale la ko jëkkal. mais dafa mel ni boo ñaax sax. waaw ah, peut-être. mais loo koy loo koy wax. ah mu mu kii rek bañ a bañ a bañ a kii rek bañ a bañ a bañ a may dara. daa jëf waay. lépp jàmm. tey looy wax sa mbër yow. non Modou du ma daan rek soobee yàlla bës ba. mais boo ñaax daa mel <laughs> non booy ñaa champion bi actiwul fii quoi waa Pikine mënuñoo ne champion fii quoi soo ko day xaar lu bëree bëri sax booy ñaa li ma jaaxal golo waajal daa ngi kan booy ñaa moom mooy waaj ba suuf nag mooy waaj ba zéro waa parcelle yamuñu yamuñu waa waa Pikine yamuñu waa parcelle mais nawet waa parcelle waa Pikine waaw ah, mais tamit waa Pikine dafa mel tam yabuñu waa Parcelles yabuñu. dara dañ leen duma ba bëgg a dee daan leen defuñu fi dara. non dañuy xaar duñu la ñoom ñoom. waaw gis nga instant yii gis nga mobilisation bi mel na nu mu doon mel wala tay yokku na. Modou Lo ñëw na dana ñëw incha wax nu mu doon waxee bëree ji jot mu daan nu doon daane incha allah day motal Pikine incha allah day motal Pikine. dégg naa ne sama gars mooy bu leen yàq lii waaw gis nga boo xoolee mobilisation bi nga xool waa Parcelles xam ne ñoom ñëpp tey ñëw nañ ci open press pour soutenir seen champion seen mbër quoi gannaaw da nga bëgg a wax loo wax champion daanaan la daanaan la ñun moo dor la ñu topp billahi mais boo ñaar daa mel ni champion la non non waaye gëmuñu ko dara champion fu billahi wallahi moo dor la ñu topp moom indi fekk fi lu fi raw fecc rek la am si lamb yi loolu ngay waxee loolu di wax fecc rek la am si lamb yi dem ñibbi boo ñaar loolu ngay wax bu jour ba bu jour waa bu fayee ñëw xam na du daan kenn mënul nekk sax. waaw dama la kan moo la fi indi moom du laaj. du question du question ñun ñu fi ñëw ñëpp am na ñoo xam sabar yaa leen déedéet ku fi ñëw mur loo la fi non am na ñoo xam sabar la fi sabar yi mu na demoon non loolu moom waa loolu la wax te am na la ne kan la man ah rek sama kanam man saa tuba démb gis naa ah, waaw mais moom loolu moom moo ko mën ñun mënuñu loolu yaa mi mu ko la ya. léegi looy non wax nañ ko ba pare daan allah ñu ñibbisi waat boo golo xam nga xam nga tey golo golo bu kaw neexoon du wàcc mais golo chaque jour ci wàcc la dëkk kon ça veut dire kaw neexul. loo koy wax jour waaw. loo koy yàgg a wàcc golo day wàcc di yéegaat loolu am problème ndax kaw a neexul. loo jour ah. booñaa kan booñaa mu taxaw. waaw arrière am yooyu ak teg xel mu bokk na ba teg rek. calcul bi mu nekkee. kan mooy champion. booñaa champion. non loolu nag xam nga bu doonul woon champion du bëre titre roi des arènes. doon champion moo tax ñu indi ko pour mu bëre pour mu bëre boobu nag mu bañ a taw mu taxaw bëre bàyyi teg xel li mu nekkee bu kiiyee mu arrière ba ci catu saako yi naan non c'est-à-dire li mu def contre Tapha lay defaat rek. loolu nga yaakaar yow. non mais boo ñaaw musul dëggal boppam bi combat yi ndaw la gëj a dëggal boppam xoolal dernier combat yi daan yëpp dañ koo fekki. moog Balla Gaye moog Ba moog Balla Gaye ku song ku fekki ñaata minute de séance la taxaw moom di xalaat. loolu nga yaakaar du. non gis nga dama lay wax benn voilà Balla Gaye Balla Gaye song bi song baaxul da daa dóor tëb te Modou Lo erreur yooyu du ko def. erreur boobu la def. kan la Modou Lo erreur boobu def ko Modou Lo dafa arrière. Ama Baldé door mu xam ni wàcce na gardam mu dóor ko daw dàqi ko parce que Ama kaawte na. léegi loo koy non Modou Lo li mu bëri comme Ama bu ko bëree day daan booy booy ñaa du fekki mbër te Modou Lo bu taxawee combat bi day niil booy ñaa na bañ nag niil yooyu muy def di ko tegle na ko bañ benn ténor la daan muy Balla Gaye amul keneen ku mu taxaw suul tànk yi ñeme jam-jam daw song la. mais nag naa la xamal benn affaire de Modou Lo waa Pikine yamuñu ko mais Boy Niang dafa mel tam waa Parcelles leen Garga Mbossé ay Dolf yëpp. xam nga tey dama koy waat dama ni la li ci Garga Mbossé du ci Modou Lo ñoom ñëpp du ci Modou Lo li tax ñi mu ngi door a ñoo xamante si nii dañ naan ñoo tolloo ñi daan ñëpp presque ñoo ko ëpp voilà mu ngi door a bëreeg. jaajëf waaw kon boo xoolee nga xam ne gars ñëw nañu en masse. ñëw ànd ak indi seen mbër ànd ak en confiance di ñaanal seen mbër yàlla may ko ndam moo tax ñoom ñëpp ñëw nii génn en masse boo xoole fii ñëpp parcelle 1 ba 26 ñëpp a génn waaw ñëpp a def benn mobilisation bu takku waaw ñëw pour soutenir seen champion quoi demal. jaa booy na xam. nice ñëpp jaam. waaw. yow looy digal sa mbër. ah. looy digal sa mbër damaa dem ba fekk man. li ma wax ndam rek. mais boo ñaan sax. moo lu mu indi fekk ko fi. Oh. wax moom boo ñaan. boo ñaan wax mooy mu daan xaay ko ba mu feeñee. mu nekk champion moo doo ko gën a nekk champion. Oh, yow la mu bañ kaa topp ko dooroon si signature ah. mu def ndànk xaar kooku noonu ak kooku desit la Pikine nii rek ñu bëgg koo fa weere quoi nekk yeneen kon Modou Lo waa Pikine yabu ñu ko mais boo ñaa tamit dafa mel ni waa parcelle yabu ñu ko ndax daan na fi ba garga mboose daan fi ay dolfu waaw est ce que xamoo sama xol dafa sedd bar sin Tuubaa ndax damaa xam ne saa ni ma ko nar a daani moo garaaw waa Pikine mais boo ñaa champion la booy noo minimise boo ñaa boo ñaa non champion la xam na loolu mais du man maa la ko wax Modou du moromu booy. Ah, non non gisuma booy bu ko fi mën a. daanay garga boose ma tollu fi. mais ñooñu dañoo Lo. léegi loo loo koy wax boo ñaaree loo koy wax. na waaj rek. dina daj lu metti. la ilaha illallah. waaw mu mel ni Serigne moo dugg si noonu Serigne moom foo ko gisee rek xamal ne Modou moom léegi mu yegg si quoi moo dugg si noonu di sotti kii noonu xam naa ne boo ko gisee rek moom mën nga jàpp ne Modou Lo li ko dese bëreegul ndax yaakaar naa ne Modou Lo julli ci bis ba pare soo ko ñëw quoi. waaw Serigne Ndiaye noonu di yëngal. saya masaya modulo masaya modulo masaya masaya masaya masaya Modou Lo masaya Modou Lo masaya ñoo mën ëpp doole daa a xaaral dëggoo masaya Boña sase bu fay la fala sa taxul mu tàkk ama ne woon naa leen 33 10 la Boña ma leen sase bu fay la fala sa taxul mu tàkk te bu ñu woowee ci vitesse ñu woo ko ci long champ parce que ñoo ko ëpp cent froid te y a jamais 203 te Modou sera encore roi moo waral man leen couronne bi du dem fii lay des du luy dem fii lay des noonu la demee nee naa la golo du ma sa wàcc te daa ngeen du yéeg te guddi guddi bukki du for te reeru ngéwél gi am yaxu béy man la guddi reeru ngéwél gi du am yaxu béy man la ñoo mën fépp dégg de Garga Mbossé du loo boña non na préparé jooyaat rek jooy jooyaat la yaa ma jooy jooyaat jooy jooyaat lañu wax non day yàqu du ma daw ko di polo di xooli la nen mooy xam na muy def kii bi fu la gisu nekkul ndam moo lay wan fi ngay toog waaw amaana ñu dañuy doon ñu rek mais moo tax waaw booy ñaan xam nga yàlla na ko yàlla defal non champion la kenn foofu waaw waaw gars yi ñooy yoon rek mais man pare naa barke sëñ Bamba ma fi yaa bi rek ma lamb di tas keroog gis naa ci sap te bu leen seetee laaj 20 millions moo ko ba la yoon la nag sa grand frère Modou Lo lan la waaw Modou Lo rek xam ne moom xam mo sunu suñu fierté quoi diko ñaanal yalla may ko ndam la premier inshallah ci kaw boña yalla yàlla boña Niang Boy Niang pare na nag de. waaw Boy Niang na mais mo tamit pare na. bëgg na jël roi bi de. waaw mais loolu la wax rek ay waxam la ay moroom waxoon nañ ko amna na bu jàlloon mais inshallah lu mëna xew rek lamb la. boña mbeur la quoi mbëru mëna bëre dañ ko ñaanal yalla Modou Lo yàlla may ko ndam sedd guuy xama ñoo ni fi bi parcel mo lool ma digal sa grand frère Modou Lo li ma koy digal mooy mu ñëw bëri li mu bëre xam nga Modou Lo du kan ci làmb ñun ñëpp xam nañ Modou du kan ci làmb bu ñëwee xam na li mu war xam na li mu war a bëri bu man loolu du cees incha allah at fii nii la lan mooy sa problème bu soo man gars yi war a jël ma bëre parce que mbër laa te bëgg naa bëre te am naa doole te damay mobiliser mais lamb ji moo amul yoon tey tey boo yi ñu génn nii mbër yaa man dama bokk si làmb man li may taxaw ni di xaar gënalu ma damay rus damay toog ay nit ñi a ah dana combat du ma xam lu may wax te bari Serigne Touba Mbacke soo bëri laa bëgg promoteur parcelle man dañu war a dëggal combat waa parcelle promoteur bu yeewoo aada booy boo na jaay kaaw gourne ñoom ñëpp war nga mën a non mais ñoo ñëpp ay su ma du sax échec si arobase nga jógee arobase daan ko jël boole ko ay saal bambay def ñoo xamante ne kenn daanu ko ci booy mais lamb ci léegi moo xamante ne comprendre am na combat parce que xam nga ne man du ma gan ci lamb yoon la ma bëri dama war a bëre waaw mel ni muy mel ni Modou Lo mooy ñëw noonu moo nekk ci 4-4 bu weex boobu noonu di ñëw Modou Lo ngi noonu ñëw na ànd waa Parcelles moo doo ngi noonu ñëw na waa parcelle yëpp ñëw neewoon naa leen day julli timis ba bëgg a moo ñëw noonu ànd ak Amet Lo waa parcelle yi ay Alboury dar ko Talfa dar ko Ñang Baalo dar ko Ngiro Seraat dar ko Tafa Mbër dar ko waa parcelle yëpp ñëw boo xoolee tey terrain église foo sànni mbaatu mu takk fees dell lépp ngir Modou Lo mu war a jàmmarloo le premier janvier moom Boy Niang 2 doomu dëggal te kenn du xarañ ah Modou ngi noonu di ñëw ànd waa Parcelles yëpp ànd ak Garga 2 Modou ngi noonu di intérieur di yëkkati Modou nga ko di def ay ñëw Modou maa ngi jàkkaarloo Modou mu ànd ak Mbacke Faye ànd ak Franc ànd ak Gora Sock dafa am mbër ñoom ci ginnaawam Ousa waaw ah, Modou ngi noonu taxaw ko sam Pambay Franc si wet gi Goro Sock si wet gi Laye si wet bi Bas Fadia Gargade si wet bi ànd ak Papis ànd ak Belende Mbacke Faye Batika mu ngi fi đây đây ô toog toog waaw Modou noonu moog Franc Modou noonu moog Franc a ah, copain waaw Modou moog Franc ñoo nekk noonu di échauffé wu moo taxaw noonu Mbacke Faye ngoog di ñëw ñu gis noonu Papa Sow wet gi Petit Lo ci wet gi Moussa Deux wet gi a ah, Père Ndiouga Dia mu noonu ànd ak laat waaw Modou Lo ngi noonu moog Belende Belende la échauffé wul noonu di sant ay gauche droite Modou Lo boo xoolee da nga naan physiquement dafa pare taqul dara laalul dara julli tibis ba pare soog a ñëw mu mel ni pare na diggante moog Boy Niang waaw moog moog Garga 2 moo Garga doo ñëw échauffé wu noonu Modou Pape Mbaye a moom noonu coach waaw Arifo nee na Modou Lo mooy neex a faral dimanche

waaw ah, naar bi naar bi daa mel ni la faral de. waaw waaw waaw champion waaw champion mais kenn mënu ma <laughs> man champion bi naar bi daa mel ni la faral de mu ngi mi ngi dëggal boppam. champion. xaw ma li nga baas. <laughs> Yo, don't wait now, Franc mooy Tyson Modou Lo noonu ànd doomu ndeyam Papa Sow waa Parcelles lépp Franc noonu ah waaw waaw noonu di tuus Modou Lo ngi noonu tuus bi justice sariya la koy teg waaw Modou ngi noonu di tuus waaw waaw waaw Modou ngi tuus noonu مودو بو خولا دا نا موغي سو فورم موغي نياخ ريك واو واو njomboree tuus noonu laay njombor di champion bu mag waaw moog Talfa ñooy tuus noonu Talfa ngoog Mbacke Faye tuus noonu kii su ma jógee El bu bu Joal la ana Oniga Ahmed Lo Petit Lo dafa am bëri ngoog lii rafet na lool. tay ñu ngi ci open presse Modou bi ah Modou Ngom sànni ay gauche droite def ay échauffement muy mel ni pare na soloon tiset bu noir buñ bind xarañ loo def su koran ah Mbacke jox na ko benn butéel mu xëcc naan ah butéel bu set wecc Mbacke Faye moom it naan na Papa Sow ay romb doomu ndayam gars yi dafa mel seen ne al bu ci ginnaaw Serigne Ndiaye moo romb noonu préparateur mystique Modou Lo laay bi daa gis naa gu ma gëj a gis libaas doomu nday Modou Lo Papis jox na ko benn butéel naan delloo ko ànd ak yaaram de bala kalfa waaw ah, Modou Lo laay bi daa góor Go Faye moo ñëw noonu indi drapeau parcelle bi ak Ousmane Mayel Ousmane Noël Ousmane Noël Ousmane Noël mooy jaajëfal noonu Modou waaw Papa Sow siif na waaw ah, waaw doomu ndeyam Papa Sow yi noonu waaw Papis am na lu ñëw sotti noonu taxaw ak Balla

loolu si ëpp a am bëri wax ni ginnaaw tribune bi ñu naan Boy Niang tey ma la Balla Gaye nekk champion bu mag parcelle bëri mi ba daan ko mën a bëre Laye Ndiombar mu bëre ku mën a bëre Laye Ndiombar Laye Ndiombar mi dàq bëre ci Marcel Assani Marcel Assani bismillaahi rahmaani rahiim dañuy yàlla bu baax a baax a baax bu jur cant bi di ñaanal suñu waajur bu góor yàlla yërëm bu xare ba àjjana ak waajur ñu ko jiitu ak ñi mu jiitu ñëpp di ñaanal suma yaay ak nekk yëpp ci kaw suuf yàlla guddal seen fan wéral seen cër ba yéene ku njaboot gi am ci ñoom yàlla dimbali ko mun koo mottali d' abord dañuy nuyu assistance bi fi nekk yëpp bu baax a baax a baax a baax di ci ji encore sant bu baax a baax a baax di leen jégalu parce que yéen a ci biir dugub yi ñoo ëpp ndax ci biir instant bi mais ñu ngi leen di jégalu di leen masawu bu baax a baax a baax encore di leen remercier di nuyu waa parcelle 1 ba 26 di nuyu waa maire parcelle. di ñaanal maire bi xam-xam yi mu nekk yàlla génne ko ci di nuyu président Xaadim Gaye président Afrique Énergie di nuyu comité d' organisation bi bu baax a baax dañuy jiital suñu grand Aziz Diagne tey nag jour spécial la pour man vraiment dama kontaan xaw ma sax lu koy wax ndax li fi am yëpp surprise xaaruma ko fooguma woon sax di ñaan yàlla incha semaine. début janvier yàlla nañ ñëwaat fii incha allah di ko fekk te gëm nañu loolu lay am incha allah yàlla may ñu ndam le premier di nuyu staff bi yëpp di nuyu sumay xarit sumay am di jàmm ah, di nuyu sumay partenaire bépp mbër bu dëkk parcelle maa ngi lay nuyu di jàmm combat di leen ñaan yàlla may leen ndam jàmm ko combat vraiment bu ñuy wax suñu contentement tey bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu di nuyu autorité parcelle yëpp di nuyu waa Cambérène waa Grand Yoff waa Grand Médine Grand Yoff HLM Grand Médine ah di nuyu daal parce que on le répète ça fas yi bépp jugee ci àdduna ñu lay nuyu nuyu waa service d'ordre bi bu baax a baax parce que gis nañ liggéey bi taxawaay rafet na bu baax a baax di wax yàlla na yàlla yokk leen ñëpp sàmm leen vraiment daal ñu ngi nuyu assistance bi yëpp encore di jégalu ñu nekk ci biti bu baax a baax di ko dugg ci waxtaan nuyu waa ASICO yi baax tamit. seen liggéey rafet na vraiment am na ambiance neex na di nuyu suma tàggu Mansour bu baax a baax bu théâtre tamit vraiment bu ñu dugg ci wax baax oui voilà donc euh, ñu passé premier intervenant voilà moo joxal baax musuma ngay nee na day baax. mbokk ñu leen di nuyu bu baax Di ñu nuyu. di la ziar di la ñaanal jàmm di la waxaat bés de joyeux anniversaire di la ñaanal bu baax a baax jàmm di ko ñaanal sa verser mais di ko ñaanal waa parcelle yépp ah waaw di am de loo xam tam mu ñu ko wax rek balaa ñu sori parce que open press la ñu wax. mais des fois open presse suñ ko waxee c'est pour la presse mais gis nañ ne saa bu ñëw ci open presse bi dañ ñuy bund xataal bu nga xam ne doo ko non dañ koy wax xarit non seen li fa la ñuy dénoncé ko yaar yaar ho parce que li ñuy wax parce que il faut ngeen bàyyi xel li may wax ni parce que loolu bëgg wax parce que Modou dina toog c'est le roi des parce que loolu bu Modou moo koy def wala ay yi Modou mais nag dañ ñu koy def ci ay open presse bu ko Modou bari na fu ñu koy defee te ñun lépp yéen di mooy jël fi message bi véhiculé ko nit ñi moo ñu yëkkati mais du leneen yaa ngi dégg loolu wax quoi yaa Modou yaakaar naa ne wax nga ko léegi fête nga sa anniversaire nee nga incha allah rabi li ngay après combat bi ñuy ñëw fii ngeen continuer fête bi laa ngeen continue loolu nga bëgg mais ki ko seqal dama seetlu ne seen jàkkaarloo bi ngeen mujj a def gërba wala boog daal na sa kaw te bi ma laajtee sànq nañ ma ko premier valeur bu njëkk rek Ibou Diouf moo ko wax moo njëkk a taxaw sa taxaw sa kanam ne doo jàll bi bi nga ji dollee ci ko ba ma xëy ngeen ba ma xënte sa kot su wala boog sa mag ne ba ma xënte am na effet bu mu def ndax nee na booy ñaar bi nga ko ba dafa amati problème mu fekk ci bés boobu ndax ñun bi ko ba ma xëy dafa yëg foofu doole joo xam ne nii maanaam mu da koo daj ba tax sa mag ne bi ko ba ma xëy yow boobu moom dafa amati problème pour mën a fecc ndax mu da koo tegal loo xam ne nii mu ne la a saf mbër te nga xam ne moo la gën a wax. ñaar yooyu rek laa lay laaj quoi loo ci doon loo ci doon. Dijé nga nga. na gaawaay na gaawaay. jëlal jëlal bàndu ba la nga takk ko ci Serigne Ndiaye moo gën a gaaw jëlal kii ba la nga takk ko jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu rek di leen ziar waaye nag rek si réew mi si réew mi Modou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di lay suñu ñoom ak sama gan yëpp yaakaar naa ne am naa trois questions pour yow bi ci njëkk mooy dañu dem keroog ci Boy Niang ñu laaj ko ma laaj ko question ne ko combat bi mën na nii ok ma ne ko amateur yu bëri dañuy xalaat ne combat Modou ak Boy Niang ne ma temps bi dañ ko wàññi sax dix minutes mais bëgg ñu xeex ma ne moom vingt minutes yu sax sax wure ko parce que sax nga doon waxal nga dëggal boppam bii pas insisté na ci xeex ak yow xeex bu méttee métti ngeen rek am na loo xam ne moom boppam mbër waaye naar kenn koo woon ci dugub soow xam na li may wax waxuma benn. sama morom du may a na am na yi na waxu ko lool li may wax na pour ñu xam incha allah dañ ci yàlla ñu ak jàmm ok deuxième question bi mooy dégg nañ ñu fekk benn slogan bu bees ñoo ko àgg ñëpp ba ci moom booy ñaan ak géwélam gànna ñoo koy dëggal wala wàccal sa ci taw yi bu baax a loolu moom golo wàccal la man du golo da nga <laughs> wax golo yi. ne ko golo gaa ngi ne ci kaw golo gaa ngi ne sa ginnaaw. man nit jaay la. da nga wax say. ay mbindaafoon ok takkusaanu premier janvier gis na ne daaw bëre na ko gagné ko ren mi ngi ñëw ci côté mobilisation rek foofu laay jeexale parce que question yaakaar naa ne bu ma conseillé peut être baax ci côté mobilisation dañu gis bii passé sa combat ak moom billet yi bëri na bi waa génération xarañ waa xarañ famille les sources lan lan mën a waaj parce que bu ngeen yéexee càppaacolo yi dinañ feesal stade parce que ci ginnaaw stade ah. ko feesal ñu wax rek. jamono ji nag lu ci xew lamb je am tension bu ci na jàll na lii incha allah jëm naa ne vingt deux sax kenn musu la mu soobee ak loolu jëm incha allah. jërëjëf salaamaaleykum Mourou ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu am tey yëpp man benn question laa am seen combat la woon mais sama combat ak Ama Baldé man sama combat la man en personne bu bëggoon a xam combat bi nga war a bëri le premier temps bi nga ko defee lan lay représenté ci yow sa combat la combat supporter la wala yow ko bokk. bii sama combat la ndax confirmation la. dafa am lu def jàggoo. dañ ko war a confirmer incha allah ba tax na bii sama combat la incha allah. jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen jógee ñu gisee ñu ñu ngi leen di ñu ñaan sa anniversaire bi yàlla ko man kenn nga gis cent pour cent parcelle bi ay leaders yoo xam ni sa ko jóge leen ci woon lan la adversaire bi toll loolu wala euh, bés bi ak nga xam ne bari na ay leaders yoo xam tey gis naa leen ci bis tey la adversaire bi toll loolu wala lan la Albouri bon passé dafa amoon combat bu jege loolu moom moo tax gis dara tàggali li may wax chaque fois utee ay gis-gis wala ay bëgg-bëgg ñëpp nekk ci jàmm ba na su may rakk lañ jàmm laa leen yéene ñaan jàmm yàlla defal ñu ko yëpp Sénégal jëm jëm kanam mais làmb ji moom ñi nga gis fii ak ñi nga gisul mbëru fan so much waaye merci ci seen émission la ak boobu yi rek di wax xam message rek lépp ñu saako bari na mais période bii la nekk ci préparation ba da ngay xat mais ñoo ngi remercier ñëpp di leen wax ñaan yi yàlla nañu ko yàlla boole defal ñu fekkaat yu bare bare di Nous jaayum kër wala terrain ci mim location mo xam appartement wala studio ak social shopping immobilier dañu lay produit rapport ak suñu ay clientèle ñi nga soxla kër terrain appartement studio bu ko défé ñu ñëw sa biir kër lay sa kër wala sa terrain wala appartement studio ci ay photo yu euh, ak ay vidéo yu doy di koy page social shopping immobilier beaucoup de faits, Yen, ngeen 77 417 77 40 wala 33 835 08 67 Action social shopping immobilier jaay n'est-ce